nga lire ko nga xool ba xam lire bi day xas Ousmane Sonko wala de et puis attends il faut moo wax leen dara ci Ousmane Sonko pour ngeen xam Ousmane Sonko je n'ai absolument aucun problème avec Ousmane Sonko il faut ngeen xam ko Ousmane Sonko mooy lan dañoo man ak moom histoire personnel xam nga mooy lan man ak moom ñoo bokk ci même université bi ñu jàngee moom dafa jàngee université Saint-Louis ba pare bi mu demee mu def concours dem ENAM man ma jàng université Saint-Louis am dem yokk yeggale sama jàng ci réewu tubaab bi n'est-ce muy nit koo xam ne nii il existe dans le champ xam nga seen àdduna loo gis ku ne dafa am role am ku ne dafa am ci loo nekk Ousmane Sonko rôle am waar bi muy bàyyi mooy politique c'est normal mu ngi ciy def li muy def man waar bi may way mu baar waar bi may bay mooy journalisme maa ngi ciy def li may àdduna noonu la donc ma créé Yérim Post invité ko mu ñëw. ñu def interview yaa ngi dégg ma créé Yërim Post invité ko mu ñëw ñu def interview mu wax wax boo xam ni boo demee ci interview di ko gis mu tàmbalee interview bi ni ma grand ma kontaan jàkkaarloog yow parce que man université bi ma ñëwee yow ak ñeneen yu mel yow dañ ma jox comme modèle donc fierté la pour man ma ñëw jàkkaarloog yow parce que ci yéen lañ doon rey bi ñuy jàng foofu ñu pare interview bi tëju wax ci Sénégal mu wax ma wax joo xam ni waxu nit la da nga baal ma ci engagement lan moo tax mu jël politique et cetera ci problème mu Sénégal yi mu wax ma moom lan mooy ay solution wax ma aussi loo xam ne lu ñu mën a dégg la man aussi li ma xam ci àdduna bi ak ni mu tëddee ak danger yi koy gete yëpp ma wax ko ko parce que réew àdduna bi dafa am force yoo xam ni tey xëy na boo jëlee nguur ba pare mën nga leen a jàmbu waaye boo jëlagul nguur mënoo leen jàmbu lu mel ni le lobby pétrolier par exemple ak bi ñu toll ci àdduna bi le lobby juif et bref ñu waxtaan ma wax ko li ma xam ni force yi nga xam ne jàpp naa ni war na leen bàyyi xel ci yoonam ba àgg fi mu jëm donc awma benn benn problème ak Ousmane Sonko au contraire boo liiree bi da ngay gis ni. maa ngi rafet lu bu baax taxawaayam mais attends j'ai écrit dans ce livre nii pale bi li muy neex neex oru palais bi li ñuy rafet rafet rafet lambri doriru pale bi li muy neex neex neex Macky Sall bu fa tuddee Ousmane Sonko moo koy teree nelaw loolu bind naa ko wala bindu ma ko bind naa ko la bindu bind naa ko wala bindu ma ko voilà Ousmane Sonko dañoo am ay xarit yu ñu bokk xam nga Sénégal Sénégal dafa non demal naa xoolal xoolal Sénégal Sénégal Sénégal dafa tuuti gis nga kaas boobu indi coow li ki tax ma defal ko Ousmane Sonko xaritam la sama xarit la dañoo bari xarit ñu bokk bari fu ñuy retrouver wu ma respecté engagement am ci politique cër bi ko yàlla jox ci politique ci Sénégal ma delloo ko ko parce que yàlla moo ko def mais nag du yàlla du yonent bi du kilifa diine danga nga wax bi te damay def distinction man entre relation yi am ak nit ki ak bu may def sama métier ci politique ni may waxe ci moom xam nga ne Macky Sall sama mag la de Macky sama mag la lool depuis 2001 sama mag la sama mag la trop trop trop depuis 2001 laa wax pourtant bu may wax ci li mu bind boo lii lay revue da ngay xam ni amul lenn lu ma jàpp ni waroon na ko def te defu ko te bindu ko ci libre bi Amadou Ba sama mag la de. Amadou Ba non Elmat da may déglu nag ah. xam nga tey xam nga xam nga fexe ba ba maa ngi wax dangay bàyyi ma wax Amadou Ba amadu Ba déglu baax ma Amadou Ba sama mag la de sama mag la waaye xam nga àdduna man je xam nga am na ñoo xam ne nii am na ñoo xam ne Sénégal dafa am lu ñuy dund guddi ak lu ñuy dund ba man melu ma noonu non Amadou Ba sama mag la mais boo liiree la problème Amadou Ba ci livre bi. xam ne li ma xalaat ci taxawaayu politique am yëpp bind naa ko ba mu jeex tàkk parce que nit ñi il faut ñu def la part des choses entre entre ñu distinguer entre rapport personnel yi ngay am ak nit ki ak li nga xam ne bu réew mi taxawee ak intérêt mi taxawee ni nga war a waxe man loolu laa gëm faruma kenn contre ma kenn képp ku liir livre bi ni man dama far ak kenn wala dama contre kenn yow yaa far ak kenn wala nga contre kenn loolu mooy dëgg beneen bi ci topp mooy politik du diine du tarixa du diine du tarixa yéen waa Pastef yi non dama ne dama ne dama ne yéen waa Pastef yi non dafa ndànk dafa leen dafa naan non c'est important da ngeen war a jàng dangeen war a jàng ni da ngeen war a jàng ni pour seen intérêt combat politique yéen seen combat politique seen combat politique pour mu baax seen combat politique pour mu baax da ngeen war a jàng benn affaire mooy la relativité àdduna lépp weexul tàll lépp ñuulul kukk képp ku la wax ni Sénégal fii dafa am boor boo xam ni dafa am ñu bon am boor boo xam dafa am ñu baax waxul dëgg su ma déggee ñaan Ousmane Sonko mu sell mi sell na sellul kooku yàlla moo ko xam mais man li ma seetlu mooy ñi développé seen pays yëpp en Afrique partout dans le monde selluñu en tout cas sell ni ñu koy woowee ci Afrique ci ci ñu ko gisee ci lislaam Kagame bu fekkee ni sell ñu koy wax ci lislaam lañ koy sellul Deng Xiaoping sellul Kikwete sellul John Kufuor sellul mais ñoom ñëpp seen réew yi fan la parce que xawral yéen seen leader bu leen ko laaj lu ëpp li ñuy laaj li ñu war a laaj ku war a jiite réew xam nga xam boo jiitee réew lan lañ lay laaj boo jiite réew xam lan lañ lay laaj ñaari affaire ñetti affaire lañ lay laaj nga am vision nga am vision maanaam yow nga am xalaat ci fi réew mi war a jëm deuxièmement nga bëgg réew mi parce que bëgg réew mi moo tax ngay bàyyi lu bari di bàyyi loolu bari say ñoñ pour mën a àgg fi nga jëm troisièmement nga am xarañteefu loolu nga xalaat nga def ay pexe ba yóbbu fa réew mi c'est tout kenn laaju na nga sell kenn laaju na nga nekk yonent kenn laaju na ngay ngay ngay fanaan aras kenn laaju na ci lenn donc loolu bu leen ko laaj Ousmane Sonko c'est pas important xam lan moo am importance na am vision na bëgg réew mi na am ay pexe pour fa mu bëgg a yóbbu réew bi mu yóbbu ko fa c'est tout nag pour vraiment pour te rassurer aw ma benn problème ak Ousmane Sonko pour te rassurer sax bis bu ne samay xarit yi ñu bokk man ak moom. di wax ak man di wax ak moom pour nga xam ne amuñu benn problème ba pare li ma jàpp man li ma jàpp mooy politique politique warul boole kenn xam nga bu ngeen xamoon homme politique yi ñoom ni ñu mel ak politique ni muy doxe ak ñoom nii ñuy dundee xam ne jaruloo meroo kenn parce que ñi noonoo tey nii mais xoolal Idrissa Seck ak Macky Sall tey nee nañ mburoog soow lañu xoolal yaa quelques années si ginnaaw lan moo xewoon donc politiciens yi jaruñoo xuloo jaruñoo xeex yëf yi ndànk rek parce que lu ne mën na xew ci politique li ci def nag mooy fi ñu jëm kenn rek moo xam kan la yàlla di jox yi kan kan moo jote fi muy yàlla c'est dama loolu dama ko gëm pour man nguur yàlla moo koy joxe képp ku yàlla tudd ni mooy toog mooy toog awma ci problème xaalal man ku mën a nekk président Sénégal changé wul dara sama dundu man wutuma poste wutuma marché public ay entreprise privée laay yor li may liggéey lu ci ëpp du ci Sénégal man wax bi may wax ci Sénégal bëgg réew mi moo tax mais sinon ça m'apporte rien xoolal ay ennemis rek la may indil jariñu ma dara dara dara dara dara comme naa nga ma bëgg a neexoon Sénégal sama yoon du ci nekk sama yoon du ci nekk comme naan nga su ma neexoon sama yoon lu ci nekk aw ma problème man macha allah aw ma problème yàlla moo ma defal loolu mais li tax may impliqué ci Sénégal lenn la yàlla dafa ma nattoo bëgg réew mi dem c'est te loolu ñu ñu jóge Sénégal ñu jóge seen réew dem dund à l'étranger lu bari loolu yëpp daf leen di daal gis nga boo boo jógee fii dem ci tubaab yi dëkk tubaab yi jàngandoog ñoom ci même école yi nga jàngandoog moom ci même école yi nga xool ni ñoom bu ngeen di jàng ci même école yow yaa leen di raw ñoom ñu génn di defar seen réew yi tali yi baax santé bi baax lépp di dox électricité bi di coupé ku feebar ñu faj la ku ñàkk sa liggéey ñu fay la mais attends après dangay ngay sa xol day bon loolu moo ñu dal xoolal amul kenn koo xam ni dund nga lu yàgg à l'étranger ñëw te li xew ci réew mi du dagg sa xol bi man dama toogoon bëggatuma woon wax parce que ça ne m'apporte rien mais mënoo fexe ba doo wax parce que ngay toog sa xool bi dafay dagg c'est ça le problème au fait nga gis nit ñi di sonn di dee xaalisu réew mi kenn jaarale wu ko yoon gars yi di surfacturer ay marché di sàcc xale xaalisu di def n'importe quoi mais loolu lay metti c'est man ku mën a ñëw pour defar réew mi j'applaudis bu yàlla namee ni Ousmane Sonko la yàlla na ñëw te defar réew mi xam nga la moo importé man na Sénégal mel noo xam ni doo génn sa buntu kër fekk ndeysaan jigéen mu taxaw yor doomam yor ordonnance la ci suba ba léegi maa ngi lay xaar pour mën a fay sama ordonnance. yooyu quand tu as vécu longtemps à daf lay choqué il faut ngeen xam drame bi nit ñi di dund en fait parce que ñu bari xamuñu lan mooy sama moteur. y a beaucoup yoo xam ni ngi wax ci man xamuñu lan moo ma animé il faut nit ñi xam lan moo nekk ci sama biir lan mooy lan mooy tàngal sama yaram ba des fois may wax may bind may mais attends c'est ça le problème dama bëgg réew yu baax c'est tout yàlla na yàlla defal ñu ñu tombe ci ki gën pour defar réew mi c'est bon maintenant y a un yaa notre euh, Ousmane Ba boo xam dafa ma laaj ni ma lan mooy sama analyse ci façon bi nga xam ni noonu lañ traité dossier Adji ak Ousmane Sonko lan mooy ci sama xalaat honnêtement honnêtement mënuma ñu ni dañu nekk ci benn république république di façon réew boo xam ne nii di façon réew boo xam ne nii li koy doxal ay règle la ci biir réew mi ñu ni dafa am ñetti pàcc dafa am exécutif am judiciaire am législatif judiciaire liggéeyam mooy àtte diggante nit ak nit ñuy àtte àtte boobu àggul man ma taxaw ni dama ci dama ciy wax dara duma ko def vraiment loolu sax dafa bokkul sax ci onen honnêtement maintenant euh, Idrissa Kébé Dramé nee na ma lu tax lu tax may wax Sicap ah voilà si voilà d'accord mu ni ma lu tax may wax lu tax may wax ni Sicap financement bi ma koy décrier ba pare ci réalisation bi ma koy citer loolu nga wax waaw lu tax may lu tax may def loolu même bu ñu sàccoon mille milliards waaw defal naa defal naa defal naa defal non sali non non non non non dama dama bëgg nga bàyyi ma leeral la dama damay bëgg rek ma bàyyi ma leeral c'est-à-dire que xoolal Sicap bi bu ñu ci sàccoon mille milliards mille milliards mu am rek dafay bokk ci bilan infrastructure Macky Sall non j'ai pas salué j'ai jamais salué dama ni. dama ko cité ci bilan parce que même bu ñu ci sàccoon 1000 milliards ci bilan la bokk nga ni Pape Alé dama ni dama ni nga ni nga ni dama ni Pape Alé dama ko waroon dama ko critiquer ko non da non li ma wax dafa leer xam nga xam nga xam nga lii mooy boole ay nit parce que Pape Alé sama frère la sama xarit la comprendre nga booy wax da ngay wax li ma wax ci moom lépp. bi ma njëkkee tàmbali non waaw non non non non non non parce que boo nee dama ko critiquer je pas j'ai pas dit ça.